boo ma namee biir Touba rek nang ma fekk kër Ami Mbacké naa la ko présenté nag mooy daage bu ministère des affaires étrangères man temps yi mooy sama temps yi mooy sama présidente <laughs> temps yi moom rek lay topp <laughs> naa la fa yóbbu léegi euh, bu amaatee euh, ku dugg ñu jël ko Pape Samba nu mu gënee gaaw ndax dañuy euh, course ak temps bi di fàttaliwaat ni seen ay commentaires ñu ngi koy xaar ci hashtag bi di midi plus ci compte yi nga xamante ni am nañu ko ci réseaux sociaux yi Euh, soxna ki yaa ngi ci ginnaaw euh, mooy taataan euh, bépp laaj boo xamee ni bëgg ngeen ñu jébbal ko Oustaz Modou Fall laaj yeeg commentaire yi ak Kia daañu ànd ak moom ci kanam tuuti bu ñu fekk see ci plateau bi ñu jëlaat beneen téléspectateur allo allo allo. bu dee da ngeen di composé numéro yi di saturé mën ngeen raccroché composé waat parce que du benn numéro de téléphone kese 88 le 628 65 65 88 cinq 05 05 ak it 88 676 06 06 wala 88 628 76 76 donc ku dugg rek Pape Samba nga paas ñu ko euh, ñu euh, jël ko euh, réew mi tàng ba ñëpp di jàmbat. waaye tàngoor bi oustaz du Sénégal kese bi ñu gëstoo ci météo <clears throat> nee nañ ñu daanaka dëkk yëpp euh, foo ci dem actuellement ñu ngi dund tàngoor boo xamee ni euh, jéggi na dayoo ñu gis ni bërki démb itam am na taw ak ngelaw lu metti euh, boo xamee ni laal na Makka ci kaaba gi surtout gis nañu ay nit yoo xam ne dañ doon dox ngelaw li di leen di leen yóbbu lii ay xeetu mbir la yoo xamante ni tubaab bi catastrophe la ñu ko tuddee ni tàngoor bi taree yenn dëkk yi lakk ñenn ñi di am inondation fu toll ni màkk am lii ça veut que yàlla euh, euh, atem benn la yàlla ji ne màkk moo nekk France moo nekk Sénégal moo nekk Espagne. jërëjëf El Hadj borom bi subhaanahu wa taala jamono bu nekk day wane kàttanam. Mhm. jamono bu nekk borom bi subhaanahu wa taala dafay wane ni moom rek moo existé. El mhm. Hadj Pape ngelaw li ci kàttanu sunu borom lay doxee. jaww ji ci kattanu sunu borom lay doxee géej gi ci kattanu sunu borom lay doxee. mais man li ma yéem ci euh, ci li xew Makka barki démb mardi bi passé la woon. Mhm. Euh, euh, kii bi foudre bi melax bi ci ci kii bi la dem ci sóoróor bi la dem. Mhm. man affaire boobu daf ma yéem. parce que Pape yàlla dafay bëgg nit ñi di ko fàttaliku. Hmm. dafay jékki-jékki moom borom bi subhanahu wa taala mu wane ni ba tey existé na. ah kon noonu lay defee. parce que yenn saa yi dañ koy fàtte. Ah. te nit ñee yëgul waaye li yàlla bind lépp dañuy tudd yàlla. ah bon ginaar yi. sa big bii day tudd yàlla. déedéet nit a ko defar wàññi gis nga bu émission bi neex <laughs> ba nga dem ca tudd Birane Ba mu teral la sala sa woowee la makk jox la piis ba nga bëgg ne big bii day tudd yàlla u saas seetal ci maanaam mbaay <laughs> ah loolu loolu kawe na de big bi day tudd la day tudd yàlla. sa montre bii day sàbbal yàlla. jamala la de bu ko sàbbalee ma xam ne tubaab bi ay na de. wa in min shay'in. waaw. illaa yusabbihu bi hamdihi walakin laa tafqahuuna tasbihahum oustaz luy loolu man tiit naa. yàlla nee na objet bu ngeen gis ci àddina muy big muy feuille loo yor ci àddina. ak lipp lèvre lipp lèvre bi day sàbbal yàlla. xanaa sañu ko de <laughs> tuñ bu ne jaar na fa di tudd yàlla. non mais arrête loolu nu mu demee noonu Oustaz yàlla nee na objet yëpp ay tudd yàlla parce que lépp ay tudd yàlla lépp lépp lépp lépp amul luy xëy ti exister ñu koy teg bët. te du tudd yàlla parce que parce que doguma la foofu dégg naa euh, mala yi par exemple. Mhm. bu ñu xëyee tudd ñu yàlla dañuy dee. mais walakin laa tafqahuna tasbiha ñun doomu aadama yu am fit yi ñooy xëy rek sax sax du ñu tudd yàlla des fois. déggoo yàlla li mu wax nee nit moo dul dégg sàbbal gi. Ah. nit moo ma ñeme moom di xëy duma tudd yàlla nee na nit moo dëgëree fit noonu ah. mais lu dul nit bu xëyee tudd ma ñun am nañu fit de sa làmp bi nga yor ci sa biir kër projecteur bii day xëy di sàbbal yàlla ah bon sa kaye bii day sàbbal yàlla ay feuille la du kaye billet itam de billet yi <laughs> na mi ni mi leer rek billet itam day tudd yàlla amul lu dul tudd yàlla allahu akbar léegi nag pap yàlla noonu mu notee àddina bi nga xam ne lépp ci ci ci ndigalam lay doxee mhm. dafay jékki-jékki moom yàlla rek mu jox ngelaw ndigal café Touba ak yëpp boo ko defee lépp léppay sàbbal yàlla <laughs> allahu akbar objet yëpp dañuy tudd yàlla parce que léegi nag pap yàlla noonu mu moomee ngelaw li wallaay karim nag dafay xëy ba mu yàgg rek mu ne ngelaw mu ne waaw mu ne ko dawal alir bu foor ca makkatal mukarram ci diggante heure sàngam ba heure sàngam nga taxaw. ni ma toiletoon nii toof bi ma toof toof bi ma ñëw. yéen mi ngi tudd yàlla te yëgoo ko. léppay tudd yàlla Pape lépp. mais defe naa yére moom booy dox ci lay tudd yàlla. <laughs> téere laay laajte téere li may laajte téere la téere. fii may waxee yow sa yére bi mi ngi sàbbal yàlla te déggoo ko. allahu akbar. wa in min shay'in. Mhm. sans exception. lu yàlla bind muy objet nga di ko gis ci àddina rek ni ngi sàbbal yàlla musuwaar bi musuwaar bi mi ngi sàbbal yàlla te lu mu jotee ak yàlla moom walakin laa tafqahuna tasbihahum luy loolu mais après après oustaz yéen da ngeen ñoo jàngal ni yàlla dafa am fu ñu koy tuddee ak fu ñu ko dul tuddee léegi yére bi ma sol bu taxee sobe nag yow de kon yëgoolu xew pam waaw wax ma ah kullu shay'in kullu shay'in ah. kullu kullu shay'in ci français mooy sans exception fa tabarakallahu li nga wax am na solo <laughs> ala kulli haal léppay sabbal sunu borom allahu léegi nag looloo waral pap dafay jékki-jékki yàlla mhm. jox géej gi ndigal ah. ni ko dama bëgg tey uh-huh. tëngéej mbaa bari ñi mbaa ndar mhm. nga ñëw tuuti ba jege yenn kër yi ba waa dëkk bi tiit mais xamal fi ngay yem. amee ah, mais borom xam-xam yi nee nañu changement climatique la ah réchauffement planétaire. yàllaa ko jox ndigal. Ah. est-ce que xam nga ni Pape. Mhm. ku nekk fa la yàlla yemloo mooy sa cër. boo ko rombee faatu. dëgg la. jën. su ñeewee ñiy dund ci jéeri ji ba ni day génn ndox mi buy génn di faatu. ndax dégg naa jën ci boppam bu xëyee bu tuddul yàlla sax day faatu. parce que logement moom yàllaa nga ko programmé ci biir ndox. dëgg la su génnee rek du am lu ko neex. mais yàlla tam garaaw na de. nit yàlla ni ko jéeri ji laa la programme oxygène bi. bis boo dof dofloo ba dem sorti fii ci géej gi lu ëpp te mënoo ndox da ngay dee. ku nekk ak fi ma la yemloo. muy muy maanaam moom muy contrôler lépp. suñu borom pap mooy contrôler lépp. ni ngay demee ci régie bi toog jàkkaarloog ecran bi. lu ne nga xam bouton bi koy bi koy doxal. sunu borom noonu la toogee tiim àddina bi. ne wa maa tasqutu min waraqatin illaa yaalamuha li àddina bi rëy rëy fu xobu garab wadd yëg naa ko mooy réalisateur bu mag bi kon sunu borom fu xobu garab wadd ci àddina bi yëg na ko xobu garab di wadd Casamance yàlla nee na yëg naa ko àllu Tamba bi xobu garab ba fa wadd ca digg naaj wa sunu borom nee na yëg naa ko maay contrôler àddina bi maay jékki-jékki nag jox ngelaw li autorisation ni ko yëngalal dëkk bi mu ngelaw ñëpp tiit ne ca yàlla. mooy mooy riixu ngelaw mooy riixu. mooy riixu donc waa Màkka riixu la leen yónnee. riixu la leen jox alxuraan nag dafa ngéwéle riixu turux <laughs> ak ma ko bëggoon dégg nu mu tudd arab plutôt. mi ngi noonu riixu. léegi nag ngelaw loolu nag pap saa yu amee yàlla dafay bëgg ñu bàyyi waat ko xel. yenn saa yi mooy moom yàlla ci kattanam ak ci coobareem mooy fexe ba amal ko ci dëkk bu mel ni Màkka. waaw ci Kaaba gi xam nga lu mu cay jublu. Ah. mooy man yàlla dara tënku ma. fi ngeen jàpp ni mooy dëkk bi gën a màgg Seyduna Muhammad ganee fa àddina fa lay yëngal. te tam moom yàlla yonent bi rek lay topp. moom lay topp toppul ku dul yonent bi. waaw lu tax dëkkam bii mu mu ruuxu mu mu envoyé fa ruuxu mi. riixu riixu mi xaw ma ruuxu riixu. <laughs> ngelaw lu metti li nga xam ne ñu doon tawaaf ñi dañoo jaari ne leen ñee jaari ne leen. parce que day wane kàttanam. Ah. yàlla sunu borom mooy wane nii ni ma bindee arab. Mm-hmm. bindee ko nit ku ñuul. Mm-hmm. ñoom ñëpp ñoo yem ci man am amuma ngën a ci seen biir. kon Karim gi dëgg la. mooy jeex na. Ah. waa léegi kuy layam layamee Dieu existe ou Dieu n'existe pas comme disent certaines personne kooku xanaa wérul. yëgul lu xew. déggoo yàlla yàlla yàlla pap dafa dafa yàlla dafay dafay dafay dafay werante dafay xuloo ak nit. Mm-hmm. sunu borom. boo jàngee alquran am na aaya yoo xam ni. Mhm. dafa mel ni yàlla day xulóob nit ki. ndax jàngoo xam nga lu mu ko wax. Mhm. yàlla dana nit ansha akum maa la sàkk. Mhm. wa jaala lakum samaa maa la may ngay dégg. wal absaara maa la may ay bët ay bët ngay xool. wal afidata maa la jox xol ak xel ngay xalaat mais xalilan maa tashkuruun ñu néew ci yéen ñooy yeewu delloo ma njukkal. Euh, li tax li tax li tax man ma may d'accord ci li nga wax. Mhm. maanaam yi nga wax yëpp. bi ko yàlla waxee ba noppi boobu scientifique yi existé gu existé ni ngi noonu pa te bi scientifique yi ñëwee dañoo dëggal yooyu yëpp par exemple ci jàng naa ni liir par exemple bi doog a juddu dégg lay njëkk a def. waaw te yàlla dégg la njëkk a wax. moo tax mu jiital ko. Ah. xolal yenn saa yi nga gis ku am ay bët di xool. te du dégg te du gis. te du gis dëgg la am na. am ku am ay nopp te du dégg. dëgg la dëgg la léegi sunu borom nee na ma may la yii yëpp. Hmm. te heure boo yeewoo li ngay njëkk def mooy faat sama waxtu. waaw ah, ñu daal ñun ñëpp nag na ma yàlla baal. julliwoo suba du yoon. maanaam julli suba importance bi mu am ci jullit bi bu xëyee mu di ko def mooy dafay wan ni yàlla maa ngi lay bàyyi xel de. wuti alal neex na lool. Mhm. waaye lii nga am ci man moom ko ci man mooy naa xëy jox la ñaari ñaari ñaari rakk non dama la koy jox yàlla. te ñaari rakk méttiwul. bariwul mais dafa mel ni dafa am lu lay tënk. parce que nee na def gi nga koy def danga may wane ni yow ku reconnaissant nga. li ma la may ci ay xéewal ngay noyyi di màgg mhm. di am kàttan di wér mhm. di lekk di naan soo lekkee maa la koy mooñal man yàlla. li war a génn ma génnee ko li war a nekk njariñ ci sa yaram mat partagé ko ci sa yaram soo gëmmentoo nelaw sa loxo nga xëy tàllal ko mu tàlli am ku xëy tàllal loxo mënta tàlli am koo xam ni dund na ba faatu xamul nu kanamu papaam mel parce que daa silmaxa am na ku xëy yor ay tànkam mënta dox am ku xëy di dox am koo xam ni ci puus-puus lay toog am koo xam ne melokaan bi ko yàlla bindee buy dox mën na diire une de temps yoo xam ne pour mu àgg day jafe yow nga am kàttan xëy dox taal sa oto taal ko mu takk nga ànd ak sa xel wala nga tëx comme man man sama benn nopp bi baaxul dara jotu la ñeenaa ñeenaa ñaar ñi am ñi ñi am ñi déggee ñaari nopp dégg nga man benn nopp laay dégg léegi nag loolu lépp sunu borom nee na ma defal la ko hmm. mais doo toog ba sant ma hmm. doo toog ba fàttaliku ma oh, doo toog ba sa xel nekk ci man oh. xoolal ni wér jafe am na koo xam ne denc na àddina ak li ci biiram. te tey su bëggee tuur ndox dañ koy brancher raakool. dëgg la. am koo xam ni bu doon alal mooy tax nit faju wir. billaahi du dem. waaye yow sunu borom may la wir. may la kàttan dara jotu la. alaaji Pape waaye doo delloo yàlla njukkal mukk mais bu gaa nga mel ni kuy wax ak man waxal ak ñëpp ñi lay seetaan nga mel ni ku may yedd nii. parce que maa ngi ciy gis sama bopp de. sénégalais bu yoree xaalis bopp ci li ngay wax sénégalais bu yoree xaalis. Eh. nga ni ko noo def. Eh. mu ne maa ngi ci jàmm. Mm-hmm. bu yorul